ay ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim Euh, mbokk internetu wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax a baax euh, ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb euh, Père Birahim ñëwaat na Baye Jili ñëwaat na ñu fas yéene leen jàngat def ci partie bu njëkk bi ñu waxtaan ci ci li nga xamante ni bokk na ci luy jëmale réew mi kanam surtout làmb gannaaw loolu damay nuyu Père rek bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan Père namm naa la ngi lay nuyu. jërëjëf auzu billaahi min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hmm. ah, maa ngi lay delloo nuyoo di wax asalaamaaleykum mbokki internet yëpp hmm. ñi nga xam ne ñu ngi safoo wasaare lamb hmm. di ko béggee di ko seetaan di ko di ci am mbégte lool maa ngi nuyu ñëpp di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm nag yàlla def sutura ci réew mi def ko ci saana feebar bi ne ci ci monde bi yàlla na ko fi yàlla jële mu seet wécc barakatu rasulillah di kontaan trop nag tey jii. Mhm. ñëw fekkaale fi tey yàlla may ñu wér ak fekkee ak taal ba ñu ah. mën a taxawaat tey jii. Eh, di mën a waxtaanaat ci xëy na loo xam ne yaakaar nañu ne suñ ci waxtaanee dina mën a jariñ. Mhm. mbokki askan bi ñuy seetaan. Mhm. waaw kon nag ma lay wax salaam. jërëjëf mbokk yi kon noonu la demee tey Pierre ponk bi mu bëggoon ñu waxtaanee. mooy dafa am lu ñu njëkkoon a gis. Euh, jamono yi deux mille cinq deux mille six. muy Barça wala Barça. léegi ñu gis beneen euh, slogan bu génn bees mm. euh, ñu tuddee ko dee moo ma a toog Sénégal mm. euh, doon ay xale yoo xamante ni mm. ay avenir réew lañ nekk xale yoo xamante ni réew mi am nañ ci ñoom yaakaar surtout waaye waajur yi am nañ ci ñoom yaakaar père ñu gis loolu mu xew fi mu toll nii wala mu doonaat lu xewaat fi mu toll nii te ku ci nekk say waajur am na fu ñu leen teg te ñoom ñëpp ku ci nekk rek loolu leen wax li ñuy wax mooy teral samay waajur moo ma tax a jóg est-ce que teral say waajur jar na nga bëgg a jël sa bakkan sacrifier ko ci géej gi dem boo xamante ne mun ngaa ñett dee moo ci am dem dëpp mbaa dee ñett yooyu yëpp ay risque la risque yooyu tey xale yi ñu ngi koy jël ban gis-gis nga ci am waaw jërëjëf euh, Djily di kontaan trop ci question bi nga ma posé hmm. euh, muy mbir moo xamee ne mii mbir mu doy waar la parce que am réew suñu demee ba ñu ne réew mi kat dee moom a gën a des Sénégal. Hmm. na Sénégal seetaat boppam. Hmm. na suñu njiitu réew seetaat boppam suñuy kilifa nañ seetaat seen bopp suñuy hmm. doom nañ seetaat ñun bàyyi nag. nañ seetaat suñu toogaayu doom. ak suñuy toog. parce que boo amee doom euh, jàngu ko jàngul métier. dara nekkoon ci bopp bi ba mujj gi mu dem ne bëgg naa xëy tekki loolu andi na problème. te ñun Sénégal dañoo fonkul métier. te dañoo tollu jamono boo xam ne bii njàngum kese njàng baax na. njàng mooy base bi. Hmm. ñàkk jàng moom musiba la. Hmm. waaye nañu fexe ba am métier. ki mën dara moo neex a dimbali. mais ki mënul dara neexul a dimbali. tey jii nga ñëw dama ji li ma ah Pape Birahim ma ne dama bëgg dama bëgg liggéey. ma yor société wala ñu ñëw ci tey ci bas mu yor société bu liggéey ñëw ne la ma ne dama bëgg liggéey mu ne loo mën nga ne ko jàng naa tubaab de. Hmm. rek nga koy wax. waaye doo ko ne mën naa def nii appareil bi bu yàqoo mën naa ko defar wala mën na maa defar man na maa defar portable bi wala mën na maa defar euh, kii bi euh, caméra bi wala man maa déplacé yow amoo dara loo mën mm-hmm. dara loo loo xam ne ni moom nga jàng loo mën mais loolu boo demee kon tëju nga ci àddina àddina nit ki day wut lu mu mën mas naa yàlla yàlla yokk wéram président bu ñu dem fa dem bëri leen ñuy wax na lu ñu war a jàppale may leen ndaw day ab métier mm-hmm. na nga jàng bu sa jàng xel nekkee sa xel sa yéex ci jàng na nga jàng parce que ñàkk jàng musiba la waaye boo jàng tamit bu sa jàng nekkoon dafa wuti métier mm-hmm. mun bâtiment bi ñu toog ci tey limal ma ñaataa ko composé ñaataa defar bâtiment bi. bari na la commencé ca maçon ba. la commencé ci mool ba. la commencé ci mool bi la commencé ah ferrailleur bi la commencé ci peintre bi la commencé ci euh, maanaam bâtiment ba bâtiment jën ak ba ci carreleur ba ci lépp électricien bi carreleur bi plombier bi ñëpp loolu bay métier la mhm. nga nga ni ma oto bi tey oto ñaata composé bari na la commencé ci tôlier ba électricien oto ba mm-hmm. la commencé peintre ba mm-hmm. la commencé ci mécanicien ba mm-hmm. métier yi dañoo baree baree ba xam ne bii dégg lu nekk tey jii nit ki mën na koo jàng mu mokk ànd ak njub yàlla dimbali la waaye bëgg a teg sa kanam rek naa dem Europe te Europe googu ñu daw di jëm tey jii fa la gën a metteeti fi mu ne parce que lañ ko wut si te Europe bu ñu daan far ñëw dañu wut ko amul métier ko am métier lu ñu amul nga indil leen ko waaye la ñu am leen ko ne foo jëm mais père bëri na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci réew mi am nañ métier. Mhm. mais mënuñoo gis seen bopp ci réew mi de. waaw très bien xam nga loolu tam lu ko di mhm. parce que ñun tamit euh, euh, réew mi ci boppam. Mhm. waruñoo jël dégg ay importé maanaam di jëli di wut ay menuisier yu ñuy maanaam li nga xam ne dañ ko jàng fii ci Sénégal am ko dañ ko war a jox waa ji di mii ko jàng fii. waaye mu dem ba tey jënd matériel bu jóge France wala bu jóge Amérique wala moo ñu gënal jënd li Sénégalais bi liggéey hmm. te Sénégalais bi dàqale ko liggéey loolu tamit manque d'emploi la yéen ba ci saag yi sax dangay gis saag boo ah, xamante ah, ni dañ naan non saag bu jógee euh, Turquie wala Dubaï moo gën a baax saag yi nga xamante ni ay suñu uude yi fii ñoo ko defar wala dàll ah. yoo xamante ni tamit xam nga bokkul ci luy doxal réew mi wala ngaay tey jii bu ñu leen defaroon benn usine tey jii hmm. seen dàll man am na mboo boobu du publicité nag damay wax day defar dàll mu toog ñaari at yàqu waaw ñaari at du yàqu ñu ngi jënd fii daal chinois boo xam ne bii daal deux mois trois mois du ko am daal ba yàqu mhm. lu tax ñu ñu ñu préféré daalu jënd ko mille francs mhm. bàyyi sunu daal yi nga xam ne tey mën ko ñaari at du yàqu mhm. da sol ba jox sa doom sa doom jox bu sëtam loolu nag loolu tey réew moo gis du utiliser la mu la muy liggéey ci réew ma réew ma day dellu ginnaaw est-ce que dégg nga wax baax am réew bu fekkee ne la la ñuy liggéey ci réew ma wala maanaam tey par exemple nga nga dundee loo xam ne nii loo dundee ko importé ji li ngay dundee mënoon na ñu lekk suñu ceeb bi di lekk suñu dugub ji di lekk suñu mboq mi di lekk suñu lii ñu béy fii hmm. mais dañ ko naan ñukk li wuti bu France baa gën wala bu Amérique baa gën bu nangam baa gën ñu suñu réew demee dañuy dem ba liggéey da ngay naan gadd njur mi bari xale yi màgg ñu war a liggéey du ñu am lu ñu liggéey hmm. léegi lan la ñuy def dem bëkk gaal yi dem te loolu li koy waral tamit foofu dinaa fi ñëw hmm. dañuy nekk kaw nga dëkk mu ñu dëkk maag yow ma dem France ñëwoon nga wax kër jënd oto defar kër. Mm. yóbbu sama yaay màkka. Mm. lu ñu wax ah yow da xoolal sa doomu baay ji gis nga ni mu def. fexe da ba am na jom liggéey. Mm. yow léegi xoolatoo nooy demee. doo jaar ci ambassade bi ñu may la visa nga dem ñaar ñu may la. nga tegu ci yoon. déedéet da nga naan nu moo demee baax na. moo tax ñu bëgg gaal yi ñëpp di dee rek man tay bi ma si dee vidéo bi sama yaram dafa daw. wallaahi père man mii saa yi bëgguma ko sax xoolaat. mooy man ko sax xoolaat. ni sa loolu est di dee ay weñ ah am na ci ñoo xam ne ñu dañoo gàtt xel nag ñooy ba ma seen doom pour ñu defi loolu hmm. jigéen ñi ñeneen nga tegg seen natt dem fayal sa doom joxe quatre cent mille hmm. wala cinq cent mille cinq cent mille na nga dajale ba am ko soo ko liggéey fii am dara parce que boo demee Guinée tey ak Mali ñoom ñëpp fii mooy seen France hmm. man sama bopp kër gi fee ne am na xale bu fa toog di xooli orange bu orange amee mu nga ci orange bu orange jeexee mu nga ci xaalis ji bu xaalis jeexee mu nga ci mango ji hmm. bu mango jeexee saison bu ne ëllëg mu ñëw mu ñëw liggéey hmm. te wóor na ma nekk boo demee Guinée ga mu dëkk tey la mu fa liggéey dañ ne xanaa kii patron la fa mu liggéey hmm. y'a pas un seul dafa amul léegi nii nag dañuy tàmm mais nag per dëkk bu mel noonu xale yi ne toog Sénégal rek Euh, dee moom mu ko gënal. Mm-hmm. fi mu toll noonu euh, gouvernement au Sénégal bi yan matuwaay la war a mën a jël ci xale yi tey ba mun leen a dëj ci réew mi ba dootuñ mën di soxla dara ci bitim réew bay dem di ko jéggaani parce que des fois da gis aadama mi jékki-jékki dem bitim réew photo wu àbb ay yére wala mu am nu mu mel mm-hmm. euh, yor benn àbb kenn téléphone sax mm-hmm. taxaw ñu ne ah, aadamakat bi mu demee léegi ñaari semaine la def yor na ay téléphone ma ngay photo ma ngay def lii seen xel nekkatul toog ci réew mi mhm. bu mel noonu fi mu toll nii nan la war a mën a téye ay doomu réew kenn dootul soxlaa ci dara bitim réew man li ma ci gis foofu mooy mhm. gouvernement bi ay jàngukaay yu métier rek école bi tamit ñu changé njàng mi mhm. njàng mi ni ñu changé képp koo xam ne ki am nga am nga niveau ñu bàyyi la nga continuer jàng mais boo dee ba nga xam ne da nga examen beneen yoon wala ñaareel jàlloo nga dem jàng métier ñu bi jàngkaayu métier yi mu bari rek waaw ku nekk boo jàngee ba métier ba pare tamit ñu fexe ba am foo liggéey foo xëy Ah, père boo amee foo xëy ba pare état bi lépp lu ñu soxla dañ koy jéggaani loolu la ñu war a dindi loolu naa loolu la ñu war a arrêté nag parce que bu fekkee ñun nee naa la am réew bu fekkee lu ñu soxla dañ koy jéggaani ci àll ba réew mu nu muy doxee parce que Sénégal euh, boo xoolee majeure partie ah. bi amul lenn loo xamante ni hmm. ñu ngi koy jëfandikoo lu lu luy jugee ci réew mi hmm. fi mu toll nii lu ci bari lu ci ëpp li ñuy jëfandikoo bitim réew lay jugee ah. ceeb bi da ngay dégg ñaa la ceeb bi suñu ceebu mbay mi daa am xeer dafay suñu suñu soble yi ngay dégg ñuy wax soble mbay mi daa bëri ay kii pombiteer ñun daal amul lenn loo xamante ne nangu nuñ ko jël muy suñu suñu gàncaxu bopp ñu nangu ko utiliser ci réew mi te tubaab yi dañuy ñëw euh, jël ko fii ci réew mi yóbbu ko ci seeni réew defar ko indiwaat ko ci réew mi mm. tamit loolu bokk na ci loo xamante ni père réew mi daal da ngay réew waaw parce que xamul ko waral tubaab yi dañoo yàgg coloniser dañoo yàgg def buum suñu baat. Mm. trois cent ans ku la ko coloniser coloniser nga jël ci moom jikko. Mm-hmm. ñetti téeméer ku mm. la déglu leen rek tey na nga xool benn rajo fii dégg euh, euh, Sénégalais buy làkk tubaab soo gisul kanam gi da ngay yaakaar ne tubaab buy làkk tubaab. Mm-hmm. pourtant malien bu làkkee tubaab nga xam ne kooku du tubaab. Mm-hmm. ivoirien bu làkkee tubaab nga xam ne du tubaab. guinéen bu làkkee nga xam ne tubaab lu ko waral. ñun dañoo yàgg a te buum boobu dañul ba nëgëri buum googu dañu fi ba ndëgën du fi deñ te du fi deñ parce que tubaab yi ni ñu ñuy imposer seen kattan ba ndëgën yi parce que suñu njiiti réew yi parce que ñoo tubaab yi nii la ñuy def mënuñoo dem bàyyi ba leen demal suñu bopp bàyyi tubaab yi toujours ci lii rek la ñuy dund booy man maa la ko nii ba suñuy sëti sëtaat ñun duñ ko fekkee sax waaye suñu sëti sëti sëtaat ay téeméeri at yaa téeméeri at dañu xoolal te péage baa ngi nii booy mm-hmm. xam nga ne bor bi yàgg na mm-hmm. dégg ak yeneen ak yeneen yi nga am tubaab yi kenn xam lu mu toll mais loolu lépp tey jii fekk mënuñoo jéem a démb góorgóorlu demal suñu bopp rek dégg nga ci coono rek la ñuy dund koy. am na solo ci coono dinañu mbëkk miir mbëkkati miir demal géej fu ne dem. wallaay père ah, wallaay père. Euh, ba tey ah, père. Hmm. mënuñoo waxtaan euh, ba tënku. Hmm. te dégguñu li nga xamante li wolof naan lu lu lu wax lu xew ma lu lu lu wax. lu ay di njàmbat waaw. lu def ah. waxul. waaw lu ay di njàmbat. Euh, tey dégg nga président France. Euh, li nga xamante ni yëkkati na ko teg ko ci ci ci li nga xamante ni mooy dina lislaam euh, wax ci wax joo xamante ni àdduna gépp ñu ngi koy ñaxtu gépp kuy jullit euh, wax jooju metti na la ngir wax ji nga xamante ne rëy na trop mu wax ko bay wax ci ci yi ñu war a changé ci li nga xamante ne mooy kaamilu alxuraan bi mm-hmm. wax ci lu lu rëy rëy rëy bu mm-hmm. doon loo xamante ni képp kuy jullit mm-hmm. mettit lu na ko am na ci loo xamante ni métti nañ ko lool ba ñuy boycotté lépp loo xamante ni marchandise la bu jógee France ak yu mel noonu ban gis-gis nga ci am waaw sama gis-gis yi de mooy mooy jullit yi mm. suñu àndoon nekk benn xàccee xàccandoo dóorandoo kenn mënu leen ci monde bi waaye ñun dafa commencé ci ñun demal ci suñu jàkka yi dañuy xuloo may Mm-hmm. kii nodde na nii kii xëcce na nii kii toogee na nii imaam bi xool jàkka boo dem fa la histoire ba xëccee. Mm-hmm. kii day wóor tabaski kii day ñaata tabaski tey la kii ne di tusu ajuma kii ne ajuma la kii ne samedi la. Mm-hmm. korite ñaata nga dégg coow li fii. ñii korite ci suba nga jënd ñi gannaaw kori. tabaski ñii tabaski ñi la jënd. mas nga ko dégg ci catholique yi. dégg ñu ne Pâques tey la. wala kenn mas nga ko dégg. doo ko dégg. kon foofu am nañu paa boo xam ne ñun amuñu ko. Hmm. te ñun kenn ëpp ñu doole. Hmm. ku am alquranul karim. Hmm. am muhammad sallallahu alayhi wa sallam am kaabatullahi dama ne kenn ëppatu la doole. xam nga lan moo ñu dese woon. ànd nekk benn xàccandoo di dóorloo bu ñu ko demoon. ak teraanga yi ñu yàlla def ci diine l'islam ak wërsëg yi yàlla def ci diine l'islam kenn du ñu ñëw ba di song waaye tàqali ñu dañoo yomb. gis nga fii rek wala fi tarux yi ni mu bare. ñii lii lañu ñii lale lañu ñii lale lañu ñii lale lañu bu kii jaare na le kële jaar na le ñuy tàqale fee di xastante di waxante fi te ñu bokk benn diine bokk alxuraanu karim bokk kaabatulaay bokk fu ñu jublu kaaba gi ñoo ko bokk bokk penk bi bokk faati ak saar hmm. ah faati ak saar ko bokk kaaba gi ñoo ràkka yi ñoo ko bokk hmm. kenn mënta fexe ba benn diine indi fi du dóor ñett ñett ñetti ràkka ñeenti ràkka kenn nu ko rangé ko fi alxuraan ba Mohamed andi woon ba léegi kenn mënu ko fi changé te kenn du ko changé te kenn mënu koo changé parce que alxuraan yàlla borom taal moo wax ne maa koy sàmmal sama bopp. wa innahu la xaafisun. waaw nee moom moo koy sàmmal boppam. kenn du ko sàmmal alxuraan yàlla koy sax kenn mënu koo changé ba changé ko ak ku mu mën a loolu wax la rek wax bu yàqu la. Mm-hmm. ak ku bëgg a tilimal suñu diine. Mm-hmm. ku bëgg a tilimal suñu diine bëgg ñoo yàqal nag. Mm-hmm. ñun ñoo ko dul may. man moo fekkoon nga toog fi wax nit ku baax la du la topp. du la sax gëstu ma romb la ni ngay wax diine du ma ci xeex du ci xool dama la topp parce que la nga wax yow la gëm man yow la concerné man concerné ma hmm. man lislaam ma gëm lislaam gëm dund. kon kon père su ma wax ji mooy. maanaam euh, képp ku ñu yab rek. ci ñun la jaar ci ñun parce que ñun bu ñu meloon ni ñu war a mel. Macron ñu wax wax. ah moo ko ci àddina ñu wax. Ah, lu wax naa la ko fi la tubaab trois cents nekk ba dëgg. moo tax seen marché bi la ñuy jël seen yére la ñuy sol seen nangam la def seen lépp la ñuy def. ñun mënuñoo tàggatuwaay parce que fi mu ne nii ku ci am diplôme boo jàngal France sax day mel ni jàngoo fenn. ku ci am bac boo jàngal France da ngay jàngoo fenn. wallaahi seetal loolu. kon tey jii ñoom ni ñu colonisé woon mu téye ñu ko ba ndëgëri ba léegi ba léegi trois cent cinq ñu ko looloo fi nekk loolu ci suñuy maam maamaat la ba fii ñu nekk nii dindi ko lu jafe la président mën na fi ñëw pour jéem ko di sax mais dafa jafe jé génn maturité nit ñi ci tubaab yi seen seen seen ci tubaab yi moo dindi ko ba mu set. ba doo xëy ba soo bëggoon doo waxal olof te doo wax ba am na baati olof yu bari ma la ko waxoon tey xamoo nu mu mu tudd ci Wolof. lool lool rek. tubaab ko tudd. wallaahi. am na boîte yu baree baree bari ah. xam xam xam xamoo nu mu tudd ci wolof. Ah, man de père loolu laay rawante. man moom wax dëgg ku ma gën a dégg tubaab. Ah. ma gën laa dégg wolof. waaw am na moo yu bari na yoo xam ne boo ko bëggoon wax ci wolof. Hmm. tey boo ko bëggoon wax ci wolof. Hmm. tubaab nga koy wax man xamoo nu mu tudd ci wolof. Ah, yu baree bari. waaw bu ñu nee pot tey nu mu tudd ci wolof lay wax. pot waaw. nu mu tudd. waaw waaw loolu de du ma ko wax moom pot pot rek laa ci xam. ah ok xam nga tubaab la. Ah, bari ci ñun dafa bari. ba xam ne tubaab yi dañoo moom dañoo coloniser ba nga xam daanaka seen i wax moom la jëfandikoo ba la ñuy léegi nag la nga xam ne moom la ñu gëm di ko dund muy suñu diini. Hmm. dañ ko jàppal suñu bopp. Hmm. man de du ma déglu tubaab wala kuy xas Mohamed wala kuy wax du ma la sax wala du ko sax du ma ko yëgal sax sama yaram du ma ko sax la xool du ma tontonteeg yow du ma tontonteeg yow sànni kuréel yow jamais ci àddina damay topp sama diine rek te ñun jullit yi nañu ànd nekk benn di xàcceendoo di dóor dóor. Hmm. jullit jullitee mbokkoon al muslim al muslim muslim aquhul muslim. Hmm. al muslim aquhul muslim loolu la wax. Hmm, dana jullit jullitee mbokkoon. dëgg la. ki nga bokkal diine bokk penk bi bokk moom sala sa bokk te kooku rek sa mbokk waaye ñun da ngay kii jullit moo la pare ma noonu la su ma la rombee du mooy fee su ma rombee du mooy ah nga di wax wax teg baat bu ñaaw ma dee teg baat bu ñaaw loolu ba kañ. bu jeex de. bu jeex loolu da yàq suñu diine. jërëjëf ah. mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb loolu ñu indiloon ci première partie bi. Ah. mu doon loo xamante ni lépp bëgg réew mi am njariñ Euh, bëgg jeunesse réew mi tamit gën cee jariñu euh, ñuy jaajëfalaat bu baax a baax a baax Père Birahim euh, ci ci xam-xam bu sell bi di ko ñaanal yàlla na ko suñ borom defal gudd fan ak wér gën a xel mi yàlla suñ borom gën ko sellal gën ko yokk ba mu yëg ko ndax Père Birahim sama Père Birahim na Père ma lay jëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf maa ngi lay kontaan ci yow taxale yow ci question yi ma posé lépp lu ma ci wax tamit bu ma juumee ngeen baal ma rek Mm-hmm. doomu aadama du mat alkamaalu lillaahi yàlla rek a mat mm-hmm. su ma juumee tam ngeen xam ne juum naa nit dong la waaw bu mm-hmm. ngeen laaj nga ma xam ni ma xalaatee la wax naa ko ku ma ci dëppool ci xalaat sant naa yàlla baax ku ma ci dëppool it nga xam ne sama xëy na man maa matul may jégalu ñëpp di baalax ñëpp di biram nuyu biram daw ndooy ak xaritam yooyu ak booyam yooyu muy nekkal nag jox na ma seen tur dama nekk sama téléphone am ñoo xam ne ñu que ñoom dañuy safoo site bi di ko seetaan te ñoom sax ñooy jël ndox doolay woykat Pape Kane tamit Pape maa ko dégg mu naan Birame Ndiaye bu wasaare. Mm. moom it mu ngi bëggee lool waa waa mm. Sage les Sages. Mm. président bi Moustapha Gueye def na émission bu neex démb. ñëpp doon ko déglu démb waxtaan bari ci làmb ji. waaw kon moom it eh, yal na ko yàlla dooleel. amiin eh, di doole ñoom Pape Konaté. ñoom Malal Ndiaye ñoom Mansour Diop xale yooyu yëpp. Mm-hmm. ak ñoom Serigne Kane. Mm-hmm. ñoom kii eh, Boy Sey. Mm-hmm. ndeysaan Boy Sey xasida lañ ko doy moom it ndeysaan ku baax. waaw di nuyu ñëpp daal. di nuyu ci États-Unis moom sama rakk la sama xarit la sama lépp la. dëgg la moom ñoom bi yàlla kooku tam bëgg naa nga xamante ne moom xale bu baax la allah waaw baax la ñoom jërëjëf Grand Dakar ñoo dend kër mais xale boo xam ne bii hmm. daf maa def kilifa def ma lépp dëgg la fi may jeexal nag it du ma fàtte Pape Mayel Diop maa ngi koy nuyu Pape Mayel bu aéroport moo hmm. ne sama boy la boo xam ne yàgg na hmm. suñu colère la te tamit ni ngay wax rek. Hmm. Ah, moom it tubaar kàlla teraanga mooy la may def. ah père Paa Mbaye day wax li xamante ne moom la njëriñ la. ah, ah waaw ah, kon baax na ñu koy def mooy yëfi géwél nag. la waaye kon dafa teraanga nga wax ko Paa Mbaye nit bu baax la. loolu de wallaahi ah teraanga ñu baax. damay toog rek gis sama porte sama orange money. ma gis ku ma xaw duma xam sax koo yónni. ndeysaan bu may lijjanti nekkate moom ngeen baal maa xanaa ma ngi jégalu. jërëjëf yooyu war ma ko àgg fi sax waaye tamit ko defal baax nga Euh, kon nag sëñ. Euh, Basiru Basiru maa ngi mm. jégalu ci loolu. <laughs> waaw yaa mu wasaare lu la leex. waaw dégg nga loolu wax ne waaw waaye nag lu tee tamit. lu la leex xam nga dafa lay am teraanga yi rek foog nga mën wax léeg-léeg ci ñëwale rek. dëgg la Pape maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaan gudd. ak yokkute bu baax a baax nag Pape Mayel nit ku baax la. jërëjëf waaw ah, Père ku ko teral rek ah, ñun nga teral. ñu mm. koy jaajëfalaat bu baax a baax a baax. Euh, di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew lamb jërë ngeen def ndaanaan laa ñaari yoon kon boo booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yeley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor si